nga nekk ak jàmm ba ilal abad ñu di ko ñaan di ko ne allahumma anta salaam wa minka salaam ilayka yaudu salaam fa xayyinna bi salaam wa duxilna aljannata daaraka daara salaam yal nañu yàlla jàmmal ndax yàlla mooy jàmm mboolem xeetu jàmm yañu mën a nekk ci kaw suuf si yàlla ñu ko dottil moom mooy ki yore jàmm ya muy jàmmal jaamaami yan nañu yàlla may jàmm woowu te mboolem xeetu jàmm yi ci moom yàlla lay dellu kon ñu ngi koy ñaan mu dundal ñu ci jàmm mu jàmmal suñu réew ci mboolem xeetu fitna waaye mu may ñu wërsëgal ñu mu tabbil ñu àjjana di kiru jàmm mbokk yi xam ngeen ni suñu tem bañ doon waxtaan yenn ci fan yu néew ci ginnaaw mu di àqu doom ci wuy jur àqul mawlud alal walid bokk na ci nga yar ko yar ju baax bokk na ci nga jàngal ko alquran jàngal ko doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax buur yàlla tabaraka wa taala moo ñu ne ci maanaa aya alquran moo ñu ne man yàlla mayki ki dénk doomu aadama ñaari wuyjur ca suratul luqmaan bu ñu demee xool buur yàlla ne wa wasaynal insaana bi walidayhi xamalatuhu ummuhu waxnan ala waxnin wa fisaalihu fi aamayn an ishkur li wa li walidayka ilayya almasiru buur yàlla ne man yàlla may ki dénk doomu aadama ñaari wuyjur ñaari wuyjur kenn pàpp keneen ki di yaay ma dénkatu tànk bi mu am baay ak yaay ñu doon nit ni moom waaw waaye yàlla nee na loolu dénkaane la waaye dénkaane boobu nag mu wóolu si ku jigéen ki moo tax mu ne xamalatuhu ummuhu wax nan ala wax nin yaay ji daldi ko ëmb ci coono ci kaw coono néew kattan ci kaw kattan ci loof kaw loof moo tax mu ne xamalatuhu ummuhu dacfan ala dacfin wa xamluhu wa ridaatun fi muddata aamayn wa qulna an nashkur lillah tumma shkur li ilayya marji'u fa ujaazi kullu bima yastaxiqu mufassiru nay ñu ne xamluhu xamalatuhu ummuhu wax nan ala wax nin dakaa ëmb dakaa yenu ci loof ci kaw loof néew kattan ci kaw néew kattan ñi yàlla teg nattu bi ni mel ñoom xam nañ bu ñu tolloo ci moment woowu nañuy mel mu ne wa xamluhu wa fitaamatuhu boo jëlee ëmb ba yaay ji ëmb xale bi ak keroog ba koy bam koy feral ci nampal bam koy nampal fii muddati amayn loolu yee boo ko kimile dina la jox ñaari at yu mat sik yàlla ne ma xamal xale bi tuur tànk boobu ca laa ko xamal ne ko wa qulna lahu an nishkur lillah ngir xale bi mën na sant yàlla ci ndénkaane boobu mu ko dénk ñaari wuyjur imaginel bu dee yow da nga nit ñaari wayjur yi doon mala woo xamante ne duñu am yërmande ci yow wala sa ñaari wayjur yi doon nit yo nga doon weneen bindaafoon boo xamante ne duñu mën a dëkk ak yow kon mbaandute yàlla yërmande yàlla ak attem yàlla mooy la nga xamante ne bu rafet nii mu tëralee ko nga doon nit nga sàkku fa ngay amee njaboot yàlla dénk la njaboot njaboot boobu di nit ni yow nga am cofeel ci moom ndax na nga bindoo la ko yàlla bindee moom it mu doon ku war a am cofeel ci yéen ndax naka yàlla bindee la fekk ngeen bindoo nii su ko defee cofeel yërmande bëgg mooy dox diggante wuy jur ak doom ndax ñoo bokk mbindin moo xam doom bi da doon góor nga jël melokaanu baay bi wala moo xam doom bi daa doon jigéen mu jël melokaanu yaay bi waaye ala kulli xaal yàlla nee na maa dënk doomu aadama ñaari wuy jur ñu doon nit ni moom waaw bi léegi buur yàlla ne ma wóolu ci soxna si ngir mu gardel man dénkaane boobu keroog yàlla ne ba mu taxale ko ëmb ba mu nekkoon coono ba mu nekkoon ci ba mu ëmbee ndenkaane bi bekk rog mu imbi ko nampal bek feral bek boo koy kimilee dina wara mat ñaari at yàlla ne ci laa xamal doomu aadama woowu nama sant man yàlla waaye nanga delloo njukkal sa ñaari wuy jur yamala tànnal ñu doon nit ni yow te na ngeen bokk xam ne ilayya marji'u ci man yàlla ngeen di dellu keroog ba ngeen jeexale ci dund bi fa ujaazi kullu bi ma yastaxiqu man daldi di fay kenn ku nekk ci yenn la mu yeyoo la mu médité kon ndénkaane boobu mooy la yàlla buur bi subhaanahu wax doomu aadama ne maa la tàggatal ñaari wuy ngir nga war a mën a nekk seen keppaar kon ba léegi mbokk yi nañ leen jàppe ne kii di tu tànk boobu bu ganisee àddina la su yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu la nga xamante ne mooy tu tànk yooyu hmm, dafa am li warloo seen diggantek ñooñu ngir ëllëg bés pénc ñu doon sabab ñu doon kiir laay bi nga xamante ne ñoo leen di aar ngeen bañ a tàbbi ci mbugalu yàlla di safara su jahannam ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa ma yàlla yónni ci askan bi yàlla yónni ko ci xeet bi moo ñu wax ci xadiis yi suñu yaay Aïcha radiyallahu anha mu ne ñu an ummul muminin jëlee nañ xadiis bi si ummul muminin di woy jure woy gomi yàlla ñi di Aïchata radiyallahu anha nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu laysa ahadun min ummati yaulu thalaatha banaatin aw thalaatha axawaatin fa yuxsinu ilayhinna illa kunna lahu sitran min annaar xadiisun saxiix axrajahu albani fi saxiix aljaamia mbokk yi suñu yaay aïsa radiallahu anha moo nekk di ñu baaxee nañu suñu yonent bi di arrasulul mustapha salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi moo ñu baaxee nañu daf ne yonent bi nee nañu laysa ahadun min ummati amul kenn samay xeet koo xamante ne yaulu thalasa banatin yàlla dénk na ko mu yar ñetti doom yu jigéen ñu doon ay sœur aw thalasa axawaatin wala yàlla dénk ko ñetti doom yu góor ñu doon ay frère fa yoxsinu ilayhinna mu góor góorlu rafetal ci ñoom rafetal seen yarin rafetal seen nekkin yonent bi nee na képp ku yàlla dénk lim la wax nii nga rafetal seen nekkin nee na ëllëg bés pénc illaa kunna lahu sitran min naar keroog bés ñooñu ñooy dox sa diggantek safara ñoo lay musal ci mbugalu safara ñooy doon barrière bay tax yow paaraam bi doo dugg ci mbugalu yàlla mbokk yi nañ leen taxaw ci xadis bi setantal ko def si tuuti taaliqaat andi si tuuti commentaire yenentu bi nee na képp ku yàlla dénk ci samay xeet nga yar ñetti doom yu jigéen ñetti doom yu jigéen yooyu nga yar leen yarinu islaam nga yar leen yarinu diini islaam nga yar leen yarin bi nga xamante ne moo dëppook njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ngay yar leen yarin bi nga xamante ne la yàlla buur bi tabaraka wa taala wax yonent bi ci suñu téere bu mag bi mu ne ko yaa ayyuhan nabi yow sama ndaw yow sama yonent bi li azwaajik nanga wax say njaboot say soxna ne leen léegi message bi na roggalaat ba mu àgg ci wa banaatika ci say doom yu jigéen yi ne leen ba léegi message ba ma la bëgg jox ni yow sama yonent bi nang nga ko roggalaat ba mu àgg ci jigéenu woy gomi yàlla ñi wa nisaa il muminin mbokk yi fii aaya bi ñetti catégorie soxna la yàlla bëgg yonent bi partager message bam ko bëgg jox ni ngir ñu jot si kon yow wuy jur ba yàlla dënk ñetti njaboot yu jigéen ñetti doom yu jigéen na nga góor góorlu nga jàngal la yàlla wax yonent bi ne na partager message bi mu àgg ci soxna yi soxna su yonent yi ñooy ñu njëkk ñi message bi dañ ci war a jot jom yu jigéen mu yonent bi dañu wara jot ci message bi mooy ñaareelu catégorie ñetteelu catégorie bi mooy mboolem jigéenu way gëm yàlla ñi dañu war a jot ci message bi message bi mooy lan ki bëgg xam message ba yàlla jox yonent bi ngir mu yéggee ko ci umma ci xeet ba ko yàlla yónni mu tàmbale ko ci waa kiram ak doomam yu jigéen ñi nang ñu may nopp ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi yàlla ne yaa ayyuhan nabiyyu yow sama ndaw yow sama yonent bi xulli azwaajika na nanga wax say soxna neleen leen wa banaatika ak say doom yu jigéen yi ne leen wa nisaa il muminina ak mboolem jigéenu way gom yàlla ñi ne leen yudniina alayhinna min jalaabibihinna nañu wàccee seen jallaabe bi nga xamante ni moom la ñuy teg seeni bopp ñu wàccee ko ci seen épaule yi bi mu wàcc ci suuf jàllaabe bi nag walla jilbaab ba yàlla wax ne na ko soxna yenentu yi teg seeni bopp na ko doom yu jigéen yu yenentu bi teg seeni bopp na ko jigéenu woy gëm yàlla yi teg seeni bopp jàllaabe boobu dafa war a dafa war a yaatu amaana du ñàkk ku taxaw ne lu tax ñu war a muur suñu bopp yi ak jilbaab boobu alquran junju fi moo ne yàlla da leen aar yàlla da leen bëgg a jëlee ci doxalinu seytaane mu yóbbu leen ci doxalinam moom yàlla ndax seytaane dafa yomb roof dafa yomb dugg dafa yomb àndandoor ak soxna yi waaw seytaane bunt bu yomb ba mu war a mën a duggee nit yàlla dakaa namm ci coobareem seytaane am bunt ci soxna yi dugg leen ci nu mu gën a gaawee loolu firne bi dinañu xool keroog ba mu ñëwee ca arjann mu jax-jaxal suñu maam aadam xam ne fii dafa diggir fii du nooy mu ñëw ci suñu maam Hawa am lum ko dig am lum ko wax ci coobare yàlla la aadama dëgëroon bi amul ci moom buntu waaye suñu yaay Hawa moom mu may ko accès mu may ko buntu ba mu dugg bu mu duggee nag mu jëfloo leen la leen yàlla tere ba léegi nag moo tax yàlla ne am na beneen sens boo xamante ne bu ngeen ko defee seytaane boobu du leen dugg moo tax mu ne neel say soxna ak say doom yu jigéen ak mboolem jigéenu woy gëm yàlla ñi nañu wàcce la nga xamante ne mooy seen kol ba ñuy muur seeni bopp yàlla ne yudniina nañu wàcce na gën a suufe alayhinna ci ñoom min jalaabi bi hinna seen muuraay ba ñuy teg seeni jë mu war a muur seen mbagg yeeg seen baat yeeg seen épaule yàlla mu ngi ni di tontu koo xamante ne da laaj lu tax ñu war a mel melokaan wi yàlla tontu na ko de mu ne ko daalika loolu ma leen wax noonu àddina moo gën a jekk àddina moo gën a neex àddina moo gën yiw an yu'raf na ñu xàmmee leen ne yéen ay julit ngeen ay julit yu jigéen ngeen falaa yuxzayna falaa yuxzayna ngir ñu bañ leen lor wa kaana allaahu yàlla nekk ne di buur bu nga xamante ne gafuuran aji jéggalaakoor bu mag la ci bàkkaar yee ngeen nekk di def waaye nag rahiman aj yërmande bu mag la ci la nga xamante ne yërëm na leen ko mbokk yi xam ngeen ne jamono boo xamante ne ñu ngi ci ñu jël produit bu nga xamante ne dañ koy commercialiser di ko jaay bu ñu bëggee mu jar ak produit bi nu mu mën a ñàkk solo pour ñu attendre attention nit ñi ci produit boobu du ñu def dara lu dut am fu ñu jaar ak jigéen def ko anam bi nga xamante ni islam daka condamné fermement ñu jël loolu ko dendale ko ak seen produit boobu nga xamante ne booy xool produit bi du ñàkk di nga gis melokaanu jëmm jooju ñu taf ci produit bi nga am loo ci xalaat lu mel ni lañuy sangoo lu mel ni takkaay lu mel ni yeneen yi nga xamante ne yéen a ma ko gën a xam pour seen produit boobu jar dinañu jël jigéen joo xamante ne yàlla dakaa santaane ne nanga nga muur say cër loolu mooy la tax ngay fegu looloo tax ñu la ñu di la xàmmee loolu mooy tax nga mucc ci loraange saay-saay boo xamante ne war na laa mën a lor ndax yàlla buur la bu ànd ak yërmande ci la ngeen nekkee ci ay càggante waaye nag buur la bu fees dell ak yërmande ci la nga xamante ne moom la leen yërëm kon doy na rek ñu ne am na jëmm joo xamante ne dafa meloo melokaanu waaw ku saayre lool waaw muy romb bërëb boo xamante ni saay-saay yaa fa nekk lu mel ni agresseurs yi ñu ne mu am xel bu tollu ni bu ma fi ak sama melokaan bi ma mel nii ma sol lu xat sol loo xamante ne lépp la sama cër bi bindoo da koy feeñal ak la ma teg sama bopp loo xamante ni islaam gërumu ko lu mel ni xeetu mees lu mel ni xeetu greffage melokaan boobu xale bu jigéen bi melo mu ne lindim ba ma bëgg a xuus nii ci kanam am na ay agresseur amaana ñu këf sama saak amaana ñu këf sama téléphone ñu ne xale bu jigéen bi loolu mu doon xalaat foofu mu taxaw yàlla dogal benn xale bu jigéen bu muur ay ciram sol lu jot muur boppam mu ñëw am fit bu toll ni mu war a xuus lindimaay boobu ñu ne xale bu jigéen bi daldi teg tànkam ci wetu weneen xale bu jigéen ba muur boppam ba muuru muuraayu islaam ñu ànd di dox ba ñu traversé béréb bu danger boobu te moone ne ña toogoon di dogale nit ñi ci béréb boobu ñu ngi toog waaye ñu xool xale bu jigéen ba ànd ak sol lu zaayre yi ci sutura bañ ko suturaal dara taxut saay-saay woowu suturaal xale bu jigéen woobu dara taxut lu dul ki ma àndal ñu ne ki ma àndal mooy ki muur yaramam ñu ne ki mu àndal mooy ki muur ciram loolu moo ko suturaal de moom si boppam xam na ko wax na ko ne yow de war na laa ñaanal mu ne ko ci lan mu ne ko yow yaa tax ba saay-saay daluñu sama kaw ndax bu dee man ak ñoom rekk ak li ma mel nii dinañu dal sama kaw dinañu nangu la ma yore est-ce que sax duñ ma def lu gën a metti loolu ñu ne xale bu jigéen ba muuru mu ne ko looloo tax yàlla ne yenentu bi ne nanga wax say soxna na nga wax say doom yu jigéen ñi ak mboolem jigéen way gëm yàlla ñi ne ñu muur seeni cër loolu mooy la tax ñu di leen xàmmee ni ñi ay jullit lañu te loolu moo leen di fegal ci bépp loraange ba nga xamante ne duñ leen lor te loolu mooy li nga xamante ne mooy la leen di aar ndax yàlla ku bari jéggal la ci éréel bu doomu aadama bi nekke waaye yàlla ku bari yërmande la yërmande ba muy jëmmale ci jaamam yi ñu ne bi léegi doy na misaal ab waay la boo xamante ne yàlla daka dénk ak njaboot yu jigéen mu ne leen tey mooy sama bisu judd comme ni ko gaye di tuddee sama anniversaire waaye dama bugg ñu toggee fii ñam bu doy su ko defee ñu yóbbu ko béréb ba ñuy defee suñu sama anniversaire ñu ne waa ji bu mu joxee ndogal bi ci ay njabootam ñu toggu togg ju doy lu bëri léegi nag góor gi bëgg a jàngal njabootaami aaya bi nga xamante ne mooy la wax yonent bi ne na nga wax say soxna ak say doom yu jigéen ak mboolem jigéenu jullit ñi nañu muur seeni cër yi loolu mooy la tax ñuy fegu loolu mooy la tax ñuy mucc ci loraange say-say looloo tax lu ñaaw lu bon lay tukkeekoo fa seytaane du leen mën a dugg keroog ba waa ji doon jàngal njabootam yi ne leen na ngeen def palaa yi ñu doon cent téeméeru palaa waaye cinquante plan yi nga xamante ne moom dama bëgg ngeen muur leen ci papier yi nga xamante ne mooy papier aluminium wala tuwaalu solvana yi nga xamante ne laa bëgg ngeen muur leen soxna Mari keroog ba waa ji waxee lii doomam yu jigéen ñi ñu daldi jël juróom fukki palaa yu njëkk yi ñu def ko comme naka waa ji santaane yeneen juróom fukki palaay yeneen cinquante palaay mu ne leen bàyyi leen ko noonu ngeen teg ko ci oto bi andi ko fa ñu war a defee anniversaire mbokk yi njaboot yi daal def la leen góor gi sant premier cinquante palaay assiette yi dañ kaa muur papier aluminium ñi ñu mër leen ay tuwaalu solvana yooyu yeneen cinquante plat yi nag nu ñu tegee ndawal yeeg soos yeeg waaw affaire u saane kundaay yeeg affaire u ñu bàyyi loolu noonu kenn muuru ko ñu jëlee ñami fañ ko toggee ñu war koo yóbbu fa ñu war a defee seen xew-xew woowu soxna mari ñu ne bu ñu àggee ci béréb boobu góor gi ne leen palaa ya ngeen leen andi muur leen ko palaa ji ngeen muur teg leen ko ni yi ngir muuruwut ba léegi ngeen dendale ko ak palaa yi ngeen muuru maanaam palaa yi ñu muuru papier aluminium ak palaa yi ñu muuru papier solvana ak palaa yi ñu muuruwul yëpp nañ leen ko jaxase ngeen teg ko rek léegi kenn ku nekk bu ñëwee moo xam la muy jëfandikoo mbokk yi ñu ne ña doon jëfandikoo ñam woowu kenn ku nekk boo jubloo ci taabal bi palaa yu ñu muuru moom ngay jël waaw ah, kenn ku nekk góor gi toog di seetaan njabootam ñoom ñu ko toog ñëpp palaa yu muuru papier aluminium walla papier toilu solvana moom la ñuy jël dem toog seen taabal di ko tijji di ko jëfandikoo papier yu ñu muuruwul nag ñu bàyyi papier yu ñu bàyyi palaa yooyu foofu palaa yu ñu muuruwul wenn papier te ñu jëlee ko fu sori andi ko fii ñu bàyyi palaa yooyu foofu ñuy taxawaalo waa góor gi ne leen xanaa du yéen a togg li ñu ne ko axa xanaa du yéen ko jëlee fi ngeen ko togg andi ko fii ñu ne ko axa kañ moo lu tax jëlu leen palaa yi ndax ngeen jël palaa yu ñu muuru rek lu kenn muuruwul lu tax kenn jëlut lu yooyu ah ñu ne ko góor du yaa bu ko kenn muuru ñu jëlee ko fee xam ah micro yu fa dugg ngelaw yu ko dugg ah góor gi lii moom kenn du ko lekk ah mu ñu leen waaw kañ palaa yi ngeen muuru ndege moom ngeen am kóolute bi ngeen kenn nar a jëfandikoo di ko lekk palaa yi ngeen muuruwul amu leen ci kóolute kenn amul ci satisfaction moo tax ngeen bañ kaa lekk parce que da ngeen ragal micro bi dugg ci biir ngeen lekk ko mu doon tooke wala mu doon feebar noonu la yàlla wax ci aaya bi yow soxna say muuru yaa ëpp confiance fa yàlla yaa ëpp confiance ci nit ñu baax ñi ka ku wuññi cëram ci biti wuññi cër ci biti baaxut wóorut doy na rek yonent bi sallallahu alayhi nee na al aynu xaqun gaafu bët dëgg la yaa nga wuñi say cër bët bu bon bët bu yées bët bu soxor bët bu iñaan mu di la xool ñu di tege say der def nga ne loolu di dina la jikk déedéet moo ne boo muuru woon sa cër amul dara luy feeñ ba nit di ko gis yàlla aar ci bët yu bon ci bët yu iñaan bët yu soxor waaw xoolal kii fiim nu mu mel xoolal kii lileem ni mu mel xoolal kii bérébu sangam ba mu bay feñ si moom ni mu mel yow da nga defee ne loolu boo ko nekkee di dund pendant un an dina la jig déedéet déedéet sutura yàlla rek a fi nekk waxatuma la nga nga ni dung nga ni yii yaay da ngay ci kaw pojum di difile looy difile li wan ne yàlla bindee sol lu kenn du mun a tudd wala melo melokaan boo xamante ne lu kenn mu lu kenn dut mën a tudd ngay jaagari jaagari di dem ak ñëw nga defe ne yaaree gaynde gi or ko yaa ngi exposé sa yaram di exposé sa jëmm ci béréb boo xamante ne but ya fa toog xamoo ana woon but muy but bu bon xamoo ana woon but muy but bu ñaaw xamoo ana woon but muy but bu soxor but yooyu yëpp bàbbeeku di la xulli di la xool ngay dimma ko ñëw moo ne lu la ko jaral ab koppar su ndaw yañ la ciy jox boo ci daanoo feebar est-ce que di mën a faju mbokk yi nañ leen xool suñu taxawaay lii mooy la leen réew mi FM 97.5 indil tey jii ci waxtaanu fajar ñu ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may dégg ak topp jaalana allahu wa iyaakum min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahuma aminna fi awtaanina waslih aimatana wa wulata umurina allahuma ihfaz bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir allahuma aminna fi awtaanina wa aslih aimmatana wulata umurina allahuma ya rabbi ihfad biladina min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baraka allahu li wa lakum fi alqur'ani aladim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh